boo xam ne ah, sama xarit woon ndax wonni na te moom moo ko waxal boppam nee na xarit ja wonni na euh, waaw dañu bokkoon dëkk ma luye ko parce dama yor benn euh, kër bu ma luye foofu R plus 2 moom mu jëloon studio tombeek man ma ñëw vacances ñu nekk foofu foofu la ñu xamante yàlla dogal mu am jabar tu tànk ak benn doom bu ndaw bu ñu wax Mohamed xale bu ndaw wa xale bi nak taq ma ndax man euh, bo gisé ma manam jégué won ko lool manam man sama njabot dañ jégué wul won ba bima gisé domam ma japp ko comme dom ndax ma yi nga xamné ni do na ko am ci manam bëgg gis samay dom souvent nga tukki bayi len bitim rew ak yoy mu ñew senegal nak bayi len fi ñew fekk fa domam luyé ko sama kër mu nekk ci ben studio bi wa fofu lañu minanté bi ñu minante it yàlla dogal maam ci moom confiance ndax confiance xëy na kenn du ko jënd da nga gis nit ki rek am ci yenn anam yoo xam ne nii maanaam da nga yaakaar ne rek mën naa doxal jàpp ko comme sa bopp waaw loolu bokk na ci li nga xam ne moom moo ñu gaañ ñun ñëpp voilà bi ma jógee foofu samay vacances ñibbisi fi ci États-Unis ma bàyyi ko kër gi affaire location yëpp di ko woo di nemmeeku jabaram te jamono ya ma fa nekkee ci lum dul woon yëg lu bari daan naa ko defaral jabaram jabaram daan na xëy ma yeewu sama appartement dégg doom ji di jooy ma ñëw euh, fop doom ji nax ko jëndal ko soowak ay biscrème ak lu nekk jabar ji moo ko laajee lu muy jooy mu ne ma ah diw de euh, day jooy parce que dañoo taalagul dafa xiif ma ne ko xanaa dara nek fi mu ma dara nek fi su ko defee ma ëkkati dara jox ko ne ko jëndal ginaar defaral nangam ak nangam ak nangam mu defar jëkkër ji bu ñëwee daan woon sax laaj bu daan ñëw di lekk bi mu démé bam jabat ji ne ma li nga may jox moo tax joxuma benn dërëm parce que day dem waye xam na ne di nga ma jox luma buma taal moo tax daanaka da ci abuser bu ma joxati dara jabat ji daan ma wax lool yalla dogal bi mako ko déggee appartement yi fa nek ñëw fi mu nek rez chaussée premier bi def ñaari studio deuxième bi def benn VIP salon chambre à coucher bu chambre à bu mag salle de bain publique jardin ci kaw a kaw ak case de euh, de détente case de thé. bon voilà léegi nag moom benn appartement bi daf ko téye lu tolloog maanaam trois mois njëkk daf na ma ka fa nekkoon day dem foog ñu delloo ko consigne bi ma ko ci deux mois consigne delloo kooku foog ne dem na ndeke diil la bu mu teg waa ji mësta bouger

léegi moom mu interpellé ma moom ndaw si à travers sama benn dëkkandoo bu yoroon sama numéro téléphone ñu woo ma ma toll fii ci États-Unis coordonné maanaam lépp ba utal leen auto vidange mu ñëw waa ANAS ñu ñëw euh, vider lépp ma recommandé leen ñu fay léegi yàlla dogal ndaw si woo ma téléphone di ma wax yeneen détail ne ma woo naa ko ba sonn ñëwul moo tax ma interpellé la pour moom mu ñëw teew nemmeeku li nga xam ne nii moom mooy benn euh, nu mu tuddati euh, lampe bu fa nekkoon boo xam ne nii maanaam ni ñu ko installé woon baaxul courant bi di sotti léegi nag ci la ma waxaale ne ma moom man bi ma ñëwee dëkk ci kër gi dama ko fay trois mois deux mois consigne benn weer bi bi muy jógee Dakar laata muy ñëw Thiès dafa ko fayew te weer woowu dama ne ko woon ndaw si na ko fay mu kitaabul ne ma ne ndaw si ko ne ma non nañ ko ko bàyyee rek xam nga nangam ak nangam comme ay quelques jours la fay def ñëw te fay na foofu location ba pare su ñëwee rek maanaam mois d'août mu mu mu mu continuer ndeke dafa fayloo ndaw si mois de juillet cent cinquante cinq mille francs jël ko lekk bi ma yëgee loolu nag ma woo ko wan ko ne lim def yëpp xamna ko bobu man danaka kaawteef bim def ci souf rek re de chaussée la yëg mais tiatch gi ndeke dafa yag te dafa law legi nak bima ko wowe di manam maanaam ci souf munema wa man euh d'accord na fekk debbi bi mu commence naa man soxlo ma sa xaalis ma ngi yor quatre auto yuy daw nangam ak nangam kat ma ne ko sëñ bi man duma sa morom mala no mala large 1m92 la 94 kg buma bofé sa kaw do jox Buma waxati bien yo yor dama bëgg ñu wax ci alikalla gi alikalla gi moy man li nga yor sama alal di nga tëdd la bëgg nga wax ma ci vertu de lan ci ko mu commencé nës nësal naan ma waaw man fofu mom dama déconné dëgg dama déconné mais ci kaw li nga yaakaar amu fa mais appartement bi ci suuf mom kër gi ci suuf nonu la cent bi ma ko jëlee maa ko lekk parce que dama ne comme doo ko yëg nangam ak nangam kërëb kërëb ko nag nit ku nekk di nga am moment de faiblesse man loolu jéggal naa la ko waaye duma la ko baal sama xaalis fay ma ko waaye nag bugguma mu yàq suñu diggante dara parce que jamono jooju ndoy li doy waar mooy sama jabar dafa nekkoon en état ci daanaka début de grossesse billaahi wallahi sama xel daj na ko pour tuddee ko doom ndax li ma yaakaaroon lépp ci moom bi yàlla defee coup bi toj maanaam càcc gi lépp feeñ ak ni ma manipuler lee foofu indil ma fa ay problème lekk sama xaalis di ma sàcc guddi ak bëccëg jour bi ma yëgee loolu wallahi tombee moo waral ay gaaf ba tey sama jabar yëgu ko mais jour bi ma yëg jëge yëgee loolu doom jama defoon sama xel ne bu dee góor dama ko koy tuddee sama jabar dafa avorté jour boobu sama jabar dafa avorté jour boobu noonu muy wan na ne ne yàlla du def dara ci hasard bi mu bi mu ma bi mu ma bi mu ma euh, confessé loolu ne ma maaw loolu moom sama faiblesse la ndax kër gi man maa lekk lii waa man maa lekk le mais ci kaw moom amul dara lu fa xajam nanga mag nanga ma jot ndaw ci suuf ne ko na ma yóbbul euh, téléphone bi ci ki ci kaw xoolal ma ndax apartement boobu noonu c'est loué wala c'est pas ndaw si ne ma appartement boobu c'est loué parce que man bi ma ñëwee dëkk fii ci kër gi ci suuf dama soxla woon benn studio ci kaw pour sama doom te man def naa fi trois mois te studio ju boobu boobu ba léegi dafa occuper muy studio bi ma waxoon ne ma. dafa libre studio boobu noonu dafa libre kenn nekku fa ba ma man fay sax consigne pour waaja a dem voilà ndeke moom consigne ba da ko lekk studio bi gaan bi continué faa nekk di fay quatre-vingt-dix mille francs par mois depuis mois de juin yëguma ko ñaari fan après bi ma yëgee aussi loolu ma woowaat ko téléphone bi ma ko woowaatee téléphone mu ne ma loolu nga yaakaar du moom te sax yow da ngaa bëggee parce que da nga ma dénk kër ba pare di ma surveiller ma ne ko man bu ma la dénkoon kër di la surveiller kër gi du toog ñett weeru yàlla nit dëkk ci te duma ko yëg su doon dama lay surveiller du fa def ñaari fan ndax dëkkandoo yi ma jàkkaar lool il suffisait simplement ma woo leen laaj leen ndax appartement boobu noonu lampe balcon baa ngi tàkk wala lampe appartement baa ngi tàkk ñu ne ma waaw la déet ma xam c' est occupé wala c' est pas occupé waaye ba ma ko ko joxee ba léegi du contrat kër gu ko laaj du maanaam reçu bu ma ko mës a laaj ci travaux plomberie yi ñuy def ak électricien ay yeneen ay affaire yu sew saa musuma ko laaj manam facture kooku ndax bëgg na waaw fa mu mujjeeg man moy mooy mooy dama ko fàtte ay dinaa ko moratoire waaw nu mu ko mën a fayee dinaa ko ko fayee mais ci kaw moom fayuma la dërëm waaw parce que li lay fay ci suuf li ma ci di ko fay li ci kaw nga bëgg ma fay ko du ci fay benn dërëm foofu la mujjee ak man voilà foofu la mujjee ak man man nag nee ko fayeeku ma la pour nga fay ma dama ne la carrément que ni yoreel nga ma soo ma liggéey sama alal ci liggéey bu set bu sell benn dërëmu riba bokk ci benn dërëmu jàmbur bokk ci ci liggéey bu set wecc ci laa ko liggéey soo ko mënee lekk ëllëg danañ taxaw ci suñ kanamu borom te bu fekkee ne ni yàlla wax dëgg na olof yi ne ku wor ren ba déwén bu la jigee danañ bu la jigee dañ la koo jiiñ man xam naa ne balaa weer wi déwén yàlla dana ma àtteeg moom te doxale naa yàlla sama diggante aussi ak moom te it loolu ma ko chargé woon ci rek récupérer location da ci doon am huit pour cent huit pour cent yi ma daan fay agence dama ko ko joxoon nga xam ne chaque fin du bu demee rek fayeeku moom jël vingt mille francs yam def ci poosam chaque fin du bu demee fayeeku jël xaalalam te lépp nag li nga xam ne ni mës naa ko amu ci lenn lu mës a nekk gratuit loolu it ma leeral ko la ma daan fay agence laa dindi ci loxo agence bi teg ko ci loxoom yaakaar ne danaa ci am lu ma nekk li ngay faral di wax rek. Mhm. sunu gaay ci bitim rew ñu ngi leen nuyu di leen massaw suñu sénégalais yi nekk bitim rew bitim rew yépp ñi ne fi Sénégal ñoo leen di door ah, ah, ah, da ngay liggéey di leen yónnee tabaxal ma du la tabaxal. Mhm. dañ ci tak jabaraka def set di di tabaxal seen bop rew me dëgër ki nek dafa am ben xaritam mu ben bakkan bu mu doon bu mu denkon kërëm mhm. lu koy luweel ak ñom seen. mais so ay ay at mu koy doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro yu mujj feeñ. est-ce que. numéro un bi la leen di tegal am na ci beneen boo xam ne numéro un bi la leen di tegal numéro deux yi nag suba la. gannaaw noonu yow yaay jaay seen yokku na dégg nga entre parenthèse dégg naa njaa si yokku na ay njaay njaay affaire bi arrangé wu la sa baar <laughs> si yokku na njaay may ma maa ngi ni dur may ma maa ngi ni dur. njaay boo Boubacar waxal. njaay ah xam nga mënoo tudd Mouhamed ba pare ami baar. mënul nekk àndul déedéet nan ca baar ba wooyuñu ko. fii daal booy yaa fi def commerce yaay jaay pënë yaay jaay bambinari eggale. fële fële <laughs> fële jàngoo lañ koy wooyee. du ngeen du du doo ñëw ci ki ko triandé waaw ba noppi revue de presse soo ko dégloo xam ne kii dur sangar si yow est ce yow yow dara dalu la tey est ce que néew moo dur waa doo ñëw ci xalaat triandé yow sangar si information laa la jox sangara si njëg gi yokku na waaw loolu yóbbu ko journal 13 heures bëgguñu <laughs> kii euh, waaw sama xarit